waaw xam nga élection bi ñun dafa am role buñ ci suyee bu wuuteeg eh, yeneen i euh, gox goxaan parce que ñun fii xëccewuñ ko kenn mais dañ jàpp ne xëy na du am du ñàkk yeneen département wala yeneen gox yu nga xamante ne ah, APR du fa am lëm bëggoon ñun fo loolu la ñuy lijjanti pour jëm ko remplacer feneen mais département Foundiougne moom eh, xam nañ ne président Macky moo ko moom. biñ ko falee mu xëy oo toutes les responsables ak gouverneur ak préfet yi méridien ne moom turu nitu ko ak nitu taax bëggatu ko am bëggatu ko gis léegi ay communauté rural da koy dindi. def commune yi comme ni Dakar amee commune na ko Diagane amee commune na ko yeneen dëkk yi amee commune comme yi dëkk yi ni dëkk yi amee ndox bu ubbee robine naan ci sangu ci na ko àll bi amee robinet nañ ko amee électrification rurale ñu ne président Macky lii mu wax daal neex na may jàpp nañ ne mënul nekk mu njëkkee ci commune yi rapidement mu sensé commune rurale yi def leen commune léegi meeru jaagaan gii ma dëkk jaagaan bark ak meeru Dakar benn la ñooy même titre léegi ñu dem ci suñu dëkk yi dëkk bu nekk fexe na ba defar forage yu doy ba dëkk bu nekk tey branché nañ la ndox boo ubbi sa robinet mu wal dëkk yi amaguloon courant tegal nañu programme bu nga xamante ne ñun responsable siiwur nañ ko ba xam ne am nañ ko. ñëw dëkk yi nga xamante ne amuñu woon ay machine wal dugal na fa moulin barki dem rek la ma madame Dieng may ay machine wal machine moulin ku xamul machine wal mooy machine moulin mu indi ko ci département bi séddale ko femme yi te

ak taax yi li des ci campagne bi yàlla nañu suñu borom may jàmm aar ñu aar ñëpp ba nga xamante ne danañ mën a eggali campagne bi te kenn deetul dégg benn accident mu am te di soññi sëfoor yi di soññi militants yi ñuy def ndànk xam nga suñu nekkee ci situation bu mel nii sa mbër génn nga kontaan da dem ba fàttali li nga waroon def te loolu am na lu ko gën na ñëpp ànd ak dal ànd ak tey te xam ne affaire bi nekkut ci doole affaire bi nekkut ci oto yu bari affaire bi ci lan la nekk carte ba ñuy jël sànni ji ko jarul xuloo jarul xeex te xale yi nga xamante ni dañ jël di utiliser ñuy rayante maa ngi leen di dénk wallaay ñu xam ne candidat yi fi nekk amul benn candidat bu nga xamante ne doomam bokk na ci ñi koy ay garde corps kon xale yi nañu xam ne dañoo am seen wéjur tey tamit dafa am lu ñu bëgg ci ñoom kon tey ànd ak benn leader rek di rey sa bopp wala ngay dugg ci histoire yu nga xamante ne jaru ko man suma sañoon delloo ci seen xel xam ne ñun ñëpp ay doomu Sénégal lañ ñu def jàmm ba élection ñëw ñu wote ko contre ñàkk ko sànnil carte doy na sëkk pour sanctionné ko mais ay kure ki jaasee ki fetal loolu man d'accord ma ci